Senegal Sénégal ngeen gis gëj ngeen gis Kounkandé Kounkandé ngi ni waaw gëj ngeen ko gis xam dafa am ci lu mu nekkoon comprendre nga mais ku Sénégalais gëj nañ la gis. waaw xam nga temps yi xam rek kër gi pour noppaloo légui sa tol ga la. temps yi ma ngi won euh, Afrique du Sud fa laa mhm. nekkoon. Mhm. Sud South Africa. ah Afrique Afrique du Sud. waaw leen ñaanal yalla ak ñoo gëm sëriñ. ah Afrique du Sud ah. sama poster lañ taf foofu naka rek sëñ bi yi ma lëngal géej gi yëpp. naqare maanaam adduna bi la Sénégal de. ah say poster lañ ta foofu. samay poster Koungheul kañ billaay walaay taala. fan foofu noonu ah? South Africa. mais déggoon naa la États-Unis fan yee passé que da dem da demoon États-Unis wala Los Angeles ak Indiana. voilà mhm. ne woon. am naa bu baax fu may recevoir les clients yi bu baax. mais foofu lan nga fay def foofu est que est que est que foofu foofu ma teg na noosukaay la. non non ku rab dugg maanaam alalam yàqu uh-huh. koo xam ne dafa feebar uh-huh. koo xam ne say noon ñoo lay sonal uh-huh. ñooñu laa demoon faji ji pourtant damay gis ay gone yu ndaw yoo xam ne ñu ngi fii Sénégal sëriñ yi duñ tukki fii lañ jëm Sénégal ndax xamuñ ne maanaam sëriñ da nga war a moderniser maanaam sa liggéey da nga war a maanaam génnee si biti mu nekk international bu dee li ngay wati dëgg la mais man xale yu ma gis fii yëpp naa la bi nga bi waxee bi nga bi nga nee danga nga demoon États-Unis am na ñu ne Kounkandé demul fenn Maroc la demoon. <laughs> léegi soo déggee loolu lan la lay def. <laughs> Mm. waaw xam nga tey maanaam tey Sénégal dafa nekk euh, réew moo xamante ne. Mm-hmm. ñoo xam ne maanaam muñ suñu tukki. muñ mm-hmm. ñu yëg avion. Mm-hmm. mu passeport. Uh-huh. kooku bu taxawee ne la yow maanaam demoo fenn. Uh-huh. yaa ngi woon Mauritanie. wala Maroc. man loolu maanaam du ma yëngal quoi. mais koo xamante tukki tukkikat nga. yaa ngi tukki di dem international si réew yi àdduna yi. kooku kenn du laam-laamee Kounkandé day tukki. mën mhm. naa dem États-Unis. Mhm. États-Unis du dara États-Unis fii. Mhm. gaa yi naan ay wa mbay da ko koo waroon a wax mu indi euh, passeport bi Maroc lay dem mosul génn fii xam nga gaa yi lan moo tax ñu soxoree la. waaw xam nga. li leen métti mooy lan. dafa am ay jaam yàlla xam dañoo bëgg a mel ni man. mais mënuñoo mel ni man parce que maanaam créature bi yàlla moo ma ko jox. du dëgg. léegi nag bu ñu demee nag forcé ba bëgg a mel ni man mënu ñoo mel ni man booba dañuy jéem a xam ne rek jalousie day dugg am mm. na ñuy wax rancunier yi mm-hmm. mm-hmm. ama loolu fii la fekk fii lañ ko fekk Sénégal rancunier yi mm-hmm. léegi nag rancunier yooyu nag mooy ronger seen xol yi muy dagg man may avancé di dam temps yi maa ngi waajal Chine Chine laa jëm nga jëm si fan la nga fay def Chine damay dem foofu noonu maanaam. Mhm. para les grands magiciens du Chine. Mhm, mhm. parce que je suis le grand magicien de l'Afrique. Je man lañ ko nommé. fan fan lañ la ko nommé. au Bénin. Bénin ah. parce que Bénin c'est le pays le plus mystique. de l'Afrique noire. premier pays. deuxième pays Nigeria. troisième pays. Moi, Sénégal. man le premier. sénégalais. Mhm. bu dem maanaam beneen ñi jox la maanaam médaille d'or mhm. les grands magiciens. Mhm. léegi nag Chine dañuy dajale les grands magiciens. du continent. cinq continent yëpp. man maay dem incha allah représenté Sénégal incha allah si kattan ah, ok gis nañ ci gis nañ ci ma maara yi nga xam ne dañ dañ daan dañ lay critiquer maara yi nga xam ne dañoo jékki-jékki fi mu nekk nii am doole si politique bi. fi mu nekk nii waxu sëriñ tax waxu waxuñu ko fi mu nekk nii politique ay politiciens lañ. waaw mooy li ma lay wax rek xam nga maara yooyu duñu ay sëriñ. ñooñu maanaam ay mannequin lañ. Mm-hmm. am na benn mannequin bu may gis mu ne xaw ma mooy ñaanal xaw ma Ousmane Sonko te muy sëkkal karaw gi nii rek mooy bu ñaaw boobu rek danaan taalibe sëñ Saliou la nu mu tudd eh, yaa ko tudd see wante allahu akbar sëriñ eh. ah, ko ah, ma xam moom ko ah. xam naa ko mais nañ bàyyi bu rek sëriñ bu ñaaw la nii balaa maa dee mu naan barke sëriñ Saliou nu mu tudd boobu non bàyyi bu sedd rek sëriñ boobu ñaaw na dafa am ay diriyanka yi ne si diaspora bi dañ may wax ne may may ñaaw na <laughs> ndeysaan ndeysaan mais mais mais Kounkandé est-ce que am nga jabar. am naa ñeenti jabar. ñeenti jabar fi ñu nekk. ñaari jabar ñuy Sénégal. Mhm. yeneen ñaari jabar ñuy bitim réew kenn ki mi ngi Sudan kenn mi ngi Angleterre. Mhm. mais mais mais Kounkandé dañuy laaj euh, nee nañ bi nga bi nga nii nii daa am sama xar yoo xamante ne dañ ne da ngaa arrêté da ngaa arrêté seet parce que fi mu nekk nii bi nga fa waxoon waxu xar géej gi ñëpp bàyyi seetatoo defoo dara moo taxoon nga toog nga nga toog dem bitim réew toog fa parce que amatoo xam-xam gars yi daal leeral leen parce que dama bëgg tey mu leer dama bëgg mu leer. xam nga tey man dama am wéeruwaay ku sama wéeruwaay mooy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu uh-huh. am nay sëriñ ñu bëri ñu manqué woon pour ma torox uh-huh. waye tay dañ ma feñu ñom ñep ne ma sëriñ bi ñun fexé dañ ba sonu pour nga torox mhm. waye ñun mu jé nañ torox mm. légui na dañoo bëgg ñew wëru ci yow mhm. ma ne leen bu leen wëru ci man dam leen ngeen wëru ci ku jara wéeru mooy Seydina wa Mawlaaya Ahmad Tidiane Chérif mhm. ñu ne won tax genn nañ la fofu nekkatoo nekkatoo ci ci dëkk bo nga am mooy kaw la nekkatoo fa déedéet xam nga man xaram xaramul al makiyu al madinati Mawlana Cheikh kenn mënu ma wax du ma neex mais lan moo tax wax jooju am wax jooju génn ñu ne Kounkandé dëggatul sañatul dëgg euh, euh, tànkam Medina Medina Medina gis nga sëriñ bi ma àndal nii muqaddamu Cheikh Ibrahim la mel na bàyyi liñ jógee demoon mhm. ziyaare Baye Niass heure bu ma mhm. neex laa fay dugg ma mhm. nga Sénégal nañ bàyyi seen nafeq xam lan moo leen metti lu may dem di ziyaare Tivaouane ma Hadji ma Alaaji Malick dañu am alaaxa man ak moom d'accord alaaxa maanaam dañu am relation man yaa ngi Alaaji Malick si Bali si Bali waaw nan ngeen amee relation man alaaj maa daf maa feeñu zahiratan nii comme ni nga ma feeñoo hmm, ban at la woon ban année. ma yow sama set ga. ban année dafa mission ma lay jox pour nga doxal ma ko parce que xam naa ne yow mën ngaa dox mission boobu. Hmm. man nag nga gars yi tey si man. dinaa hmm. lakk ñu bëri safara. mais la moo tax kaddu googu ñu ne. gis nga seet. man tëdd guddi gi. man du ma nelaw fajar lay tëdd huit di du matin. guddi gi yëpp dama koy liggéey tur yàlla. yaa ngi dégg mm, mm, mm. si guddi gi maanaam si lañ may yóbbu maanaam si xadaratul ama wa tam si di ma war lépp mm-hmm. man bépp doomu bu ma rek mm-hmm. jarul sax nga may wax damay wax ak yow di la wax li na si yow mm-hmm. seetatuma si petaaw seetatuma si ndox seetatuma si kurus dang may xoo rek wara nga ma xool la ni rek nga xam la si yow mais lan moo tax gars ay seetatoo xam nga bi nga da ngaa bi affaire yi xaw ma bi affaire xar géej bi mu kalaatee boobu nga kalaatee kenn ñëwatul si yow woot wootuñ la ah wa seetlootuñ la ah mais lan moo tax information fu mu jógee information. gis nga bi ma bàyyee média yi intermédia média yu seytaane yi. Mm. mooy mooy pa pa yow mm-hmm. de mooy journaliste naafeq yi. waaw ay naafeq lañ de si la kilifa yu bëri milliardaires yi commencé ñëw si man. parce que bu njëkk nee nañ xam la moo tax mm-hmm. ñemewuñu ma woon. parce que nee nañ man damaa fësoon si internet bi te ñoom ñëwuñu internet kilifa du seet ku fës si internet. Mm. gis nga sëriñ boo gis mu siiw internet benn kilifa du ko seetlu pour ñaandu yàlla pour dañ ko soxla. Mm. te doo mos si millions yi. kon dangaa bàyyi wax si bi nag kilifa yi commencé nag di ñëw naa ñu nekk ñun ah. damay conseillé borom xam-xam yi ñoo xam ne nag am nañ xam-xam ulama wu lay wax mhm. ku bëgg jër jëriñu mhm. maanaam si réew bi Sénégal am na ay milliardaires yoo xam ne sëriñ rek la ñuy wër nag mhm. borom xam-xam bëgguñu télé bëgguñu internet moo tax ma reculer ni nga fi defoon seen TV ah ni nga fi defoon et cetera feneen feneen ak feneen feneen loolu la lañ la waaw loolu maa ngi koy waajal temps yi bëgg naa def benn sortie mhm. ak yow télé boo ma invité naa fa ñëw wax fa xam-xam mhm. Mhm. def fa muxjisa karaama loo xam ne benn sëriñ mosu ko def ma rek maay sëriñ bi dem télévision di def karaama defoon nga fi lux soon nga fi ay millions yu bëri waaw lu gën a garaaw loolu laay defaat sax gannaaw loolu bu ñu fa jugee ko dañuy jubluwaat si géej gi waaw parce que géej gi am na lu ma waxoon sénégalais yi dama la newoon maanaam mën naa xotti baxaru bi daf ko juróom-ñaari mbedd loolu tax defoo ko woon voilà xam nga jamonoy Macky Sall dafa man maanaam ministre de l'intérieur bi ñuy wax Antoine Félix dafa équation la woon si moom dafa attan attanu ko moo yàqoon programme mu yebal police nationale bu Dakar pour ñu dem jëli mm-hmm. ma ñëw ñu ne ma da ngay parce que nous sommes en Covid. Mm-hmm. noo ko def. mais jëloon nga décision ba jël ay mercenaires ay muqaddam pour louer chaloupe bu gam kii bi Gorée bi. waaw pour préparer dem île des Serpents pour xotti ndox. mais loolu lan nga ko doon xotti événement boobu. lan nga ko doon xotti léegi nag maa ngi waajal événement boo xam ne bëgg naa def benn déclaration. mais fan yii lay doon incha allah bëgg naa yow nga teew si. parce que yow géej gi ñor na la lool. waaw géej gi man dafa maa ñor parce que il faut nga xar géej gi. voilà bii pas suñu ñëwee dafa am benn démonstration bu ñëwoon Sénégalais yi dañuy dem ba géej. Ah. mbéjum mm-hmm. ñu def démonstration bi déclaré bés. Mm-hmm. Sénégalais yëpp xaar. mais mais kañ nga may jox jour ma ñëw tànk ak tànk mbagg ak mbagg konkaate ñu dem ba si géej gi nga tegtal ma nan nga koy xaree. bisimilah incha allah tey lan la yoomul axat la waaw léegi dama la jox rende bi incha allah yoomul juma bii di ñëw. Mhm. bu dee disponible nga. yoomul juma ban la mooy vendredi bii ñëw incha allah. boo disponible. Mhm. bëgg naa ñu si lëg daawur suñu la ma wala démonstration bu ndaw ni may xottee baax. Mhm. il faut waaw nga nga ma ko parce que man damaa ñor du euh, euh, chaque jour su ma tasee ak yow dama naan Kounkandé kañ la géej gi di xar kañ la géej di xar parce que sénégalais yi il faut nga def loolu ma xamoo boobu il faut nga def ko. léegi dama ndax sénégalais laa jox ci. léegi dama am message non non xam nga tey sénégalais yoo xam ne maanaam amuñ cër si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam orman, ay manque orma parce que amuñ cër sénégalais bu am cër si yonent bi sallallahu alayhi wasallam may ormal parce que man ku ma la xam ne dama nit ku bon ku ma xool ba dee soxoroo rek nga xam ne lu may parce que li wax nii man maay premier sénégalais bu ko njëkk wax sénégal ba si ñeneen bu nañ bu ba ñëpp di la yuuxoo naan la Kounkandé yaa ñu tax géej géej léegi def na trois ans moo ko déclaré ñu soxor ñi le vingt mi ngi ne waroon le dix huit août deux mille vingt et un vingt deux vingt trois vingt quatre ans maa ngi téye ma xamal mhm. mhm. dara wàññeekul ci man mhm. te maa ngi sant yàlla yaa ngi dégg léegi vendredi dama lay yóbbante sénégalais ne leen Kounkandé mi ngi def déclaration bi di ko waajal incha allah baxru bi géej gi fu mu tegoon tànk ba léeg bàyyi ko ma kon incha allah vendredi bi incha allah di nga defaat déclaration. naa la defal benn déclaration bu ndaw nga leeral ko Sénégalais yi. Mhm. man maay benn sëriñ. Mhm. boo xam ne. Mhm. maa fi woote maanaam li ko danee hijriya. maanaam mille quatre cent ba mille quatre cent quarante cinq. yaa ngi dégg. ba ba ñuy dem maanaam mille cinq cent. si hijriya. si gàddaay gi. doo gisaat beneen sëriñ bu oote li ma oote. yaa fi nag yow la fi yàlla teg. xanaa ñu dem ñëwaat si beneen xij mhm. beneen beneen beneen beneen zaman maanaam bi ñu ko waxee mooy beneen beneen siècle mhm. mille cinq cent mhm. boo ko isa adatee si calendrier maanaam français dafay nekk deux mille l'an trois mille kii ba l'an trois mille doo gisaat beneen sëriñ bu taxaw ne liñ mayoon yoon yàlla Moussa mbóot boobu mu mm-hmm. mu xotti baxaru xalsum fukki mbedd ak ñaar uh-huh. doo gisaat kenn mm-hmm. maanaam si sëriñ si Afrique noire bi ku woote loolu mm-hmm. benn la mooy man mi ne Kandé doo def ay révélation doone doone tey lii mooy am doone tey lii mooy am nga bëgg a nekk sëriñ comme ñoom gars yi li ñu koy waxee nan tey la kii lii di am suba kii na gaañu suba kii ni na ngénte lan moo def doo def def révélation yooyu waaw yooyu dañ koy def xam nga tey boo xoolee ruuxu yi uh-huh. chaque maanaam une semaine dana am ruuxu bu dem kilifa. Uh-huh. loolu du xam-xam du set mm. loolu ñu jàng ilmul falax yi xam-xam météo sax. Mm-hmm. mooy français yi. ñu jàng astrologie sax xam nañ ko. Mm-hmm. loolu du xam-xam. Mm-hmm. xam lan mooy xam-xam. xam-xam dëgg-dëgg mooy lan nit ki nga jàkkaarloo moom xam kii maanaam. biddiwam fan la taxawee. wërsëgam fan la toll. ñaata lay dund. kañ lay dee at fan lay deewee. loolu mooy toog télé rek. nga ne semaine diw dana dee. loolu du xam-xam. mais yenn saa mu tombe mooy laal moom laa la sérologie maanaam tombé la. Mhm. maanaam da ngay xalaat nii rek di wax. Mhm, mhm. loolu du xam-xam. yow loolu mun nga koo jàng sax loolu nasaraan tubaab dañu koy loolu jamalul uh-huh. yaa ngi dégg bu baax. Uh-huh. kon kon uh-huh. sëriñ ndaw yi nañ bàyyi yooyu ay diw dana dee. semaine bii ñëw kii dana dee loolu du xam-xam. xam lan mooy xam-xam. nit koo xam ne maanaam dafa amoon alal. mu ñàkk alal yëpp. nga fexe ba alal bi ñëwaat. Mm-hmm. te loolu da koy def. Kounkandé kon incha allah ñu sa dernier kàddu. waaw lu may wax may euh, boo xoolee tey maanaam Sénégal. Mhm. soixante quinze pour cent yëpp. Mhm. boo si génnee maanaam tey mhm. vingt cinq pour cent yi. am na ñoo xamante ne tey fa gëm nañ ne man. ah. yàlla defal na ma maanaam xam-xam jox na ma xam-xam boo xam ne. mën naa taxaw di wax géej gi ubbeekul mu ubbeeku. nii waaw parce que ñëpp mënuñoo nangu. am na am na vingt cinq pour cent Sénégal gëm nañ ne man suma tawee si géej gi mën naa ne géej gi ubbeekul mu ubbeeku billahi wa rabbul kaab mën nga ko yàllaa koy maye di mais kañ nga koy def loolu ma teg sa mbët kañ kañ parce que Antoine nekkatu fi waaw ah. kii ah, amul benn programme boo xam ne xaw na Sénégal loolu est-ce que doo ko def waaw léegi xam nga instant bi ñu ngi si Chawal jul uh-huh. faara jul xijja ñu ngi waajal tabaski uh-huh. buñ jógee maana sul xijja mhm. ñu ngi waajal maanaam at bi jeex na ñu dugg si muharam mhm. mooy tam xarit mille quatre cent quarante ci laa déclaré maanaam ci sama déclaration ci laa bëgg a joxe date bi mhm. waaye damaa bëgg yow ñu dem géej vendredi waaw ma wan la loo xam ne maanaam du deñ luy leer na la yow man leer na la yow boo tëddee na la xam nga ne man mën naa ko loolu foog mu la ko laaj. incha allah ñu won ko Sénégalais yëpp cappal sa baaraam foofu ba yow. jeudi incha euh, vendredi bii di ñëw incha allah bu ko defee vendredi ñu ànd dem ñu taal oto yi. Mhm. ñu doxantu nang dem téere bi soriwul. ok incha allah. après ñu ñëw kon sénégalais yi jox nañ leen rendez vous incha allah vendredi Kounkandé dina def dina ànd ak moom incha allah si kanamu géej gi mu won ñu mu won sénégalais yi nan lay xaree géej gi. dañ koy jël 19h30 19 heures 30 incha allah. ma ne ko yàlla mooy maye de ko seqal tara nga xam ne sa ngor yaa yëwen gore. bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mën nga cee def lu ne. dina yi xamee nañu la. dëmm yi xamee nañu la. malaaka yu xamee nañu la. bul yàlla may jaam yàlla mën na may nit ci benn jour lu mayul mbindeef mais yàlla moo la defal ni nga mel ni yàlla moo la ko def dama yërëm ku la bañ sa noon du nelaw sa bax yi wër na àdduna ba mel ni élection réseau commune département ñëpp lay wotal dama yërëm ku la bañ sa noon du nelaw yaa xayu yaa zal jalaali mën nga cee def lu ne